boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ci jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom mi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital store lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek da bànneexu client yi digital store lépp lu mu la jaay dafa la koy livrer ba fan ko soxla li ci gën a neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tollook ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen payor bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digitalistore Améliorez votre quotidien. Téléphone 33 823 77 87. ko doon laaj na TQG Touba Quincaillerie Générale ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matériel u quincaillerie de qualité egg na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba Dakar pour outil matériel u quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie Générale Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration. décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matériel u quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 2018, Touba Quincaillerie Générale, notre force, la qualité. kii jullit yi gannaaw ba nu sante sunu borom julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal di fàttali sunu bopp mu gën a fab sunu bopp sunu pas-pas sunuy wax sunuy jëf sunuy yéene lépp teg ko ci taqwallah bis bu nu sunu borom di woo yàlla na fekk ñu doon dëgg dëggi jullit ñu fàttali ne sunu borom mi nga wax ak ñun ci alquran ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen amuk sunu borom bi ak yi muy ànd ak yépp bu leen dallu bu leen astandiku teg leen seen tànk ci jaamu yàlla ba faw bu ngeen ci jógee ba mel ne seen jaan wàcc na lu ñu leen joxañ ne lu fu ñu leen joxañ ne leen fu baax a nga fa ngeen jëm fa su baree ba bari da ngeen dugal seen loxo foo xam ne bu ngeen ko génnee da ngeen kiilu yaa ayyuha alladina amanu rkau wasjudu waabudu rabbakum wafaalul xayra laallakum tuflixuun ñu fàttali ne weeru baraxlu teru na weeru baraxlu nag bu teroo jant bu so rek koor a ngi gën a jege si doonte am na fit yu muy yóbbu yoo xam ne bëggu ñoo xam ñaata fan lañ am loolu xelum seytaane la koor moomu nga xam ne mooy weer bi yetti yëf daje yoo xam ne benn jullit mënu koo ñàkk yàlla nañu ko fekke te amug wéram te tal ko te luñ ca jëf suñu borom nangu bu ñu xoolee ci nett lu yu wér ña fekk jamono yonent bi sallallahu alayhi wa su weeru koor masaa teru soxna Aïcha nee na radiyallahu anha musta gis musta gis ku gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woor woo weer bam jax tàkk ci lu dul weeru koor waaye nag su weeru balax lu ñëwee moom day mel na du moom bu weeru koor jeexee dañuy defe ne yonent bi sallallahu alayhi wa duutu um mukk wala boog duñ xam ne daa woor te yonent bi sallallahu alayhi amutoon lu muy nëbbu jullit yi ndax léppam lañ soxla nee daal bu bu ñu waree moom dañuy defe ne moom koor lay négati waaye saa bu baraxlu teroo moom dana gis muy woor ay fan yu bare bare bari doonte nag du def at mu jot mu woor weer wi lépp waaye fonkoon na daal di woor ci baraxlu ku ñuy wax Usaamata Usaamatu bnu Zeydin nag radiyallahu anhu nee na moom ci boppam moo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu da koo jaaxaloon lool lu tax daal mu fonk woor ci baraxlu lool mu ne ko baraxlukat fi mu dugg dafa xat lool dafa dugg diggante rajab ak weeru koor rajab ak la ca nekk lépp jàmbaar yi di ko màng woor ko lépp ba wooraale ci baraxlu am na jàmbaar yu koy def loolu lépp rek dañ koy waajale weeru koor mu mel ne baraxlu def fee nar a lool am nañu góorgóorlu ci rajab lool ba rajab jeex ñuy séentuwaat weer wa ca ginnaaw baraxlu ba tax nañu baree bari duñ ko baal xel lañ ko war a bàyyee xel baale xel waaye lañ cay def mooy am na ci ñoo xam dañuy jàq seen fit bii testé si ñu am ñaara ñaar nga mi fan moo des ci koor ak ko ñoo wuuteeg gaa yu jëkk ya waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ne baraxlu fi mu dugg moom ñu sàggan ñépp dañuy tekk seen laxasaay yan nañ ca la musal tekki laxasaay ga mooy dañuy defe ne rajab jàll na lañ ca santaane woon lépp def nañ ko seen jaan wàcc na léegi nag nañ lekk naan ndax waajal weeru koor bi nga xam ne kenn du lekk kenn du naan mu ne ñooñu dañoo déggut buñ déggoon la ma dégg dañuy boole rajab ak baraxlu yépp waajale ko koor gi ndax baraxlu wii nga xam ne ci lañu lekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax nee na danañ ci farala yëkkati jëfi jaam ñi di ko gaaral sunu borom moom nag nee na ak nam tollu woon daa bëgg saa bu ñu koy gaaralal sunu borom ay jëfam fekk mu woor boole ca kon bokk woor bu ñu taamu la ku ca woor benn ñi nga xam ne dañoo ragal koor gi danañ ko ci tàmme bu dee loolu kese la yal nañu ca la musal boobu pas-pas bu dee ñi nga xam ne nag moom lu baax la ñuy wër saa bu ñu déggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na la yonent bi di jëfe kenn du leen ca man bu weeru koor wi ñëwee fekk tàmm nañ ko seeni cër nangu ko seenum xool bëgg ko waaye gaa yi nga xam ñoo topp ci sallallahu alayhi wa sallam bu barax lu masan teru téere bu waaye jël amoon dana ko seetiwaat fas ko yéene ubbiwaat rawati nag alquranul karim di ko jàng ka jàngaat am na si ñoo xam ne sax ci baraxlu lañ taamu woon di sa joxe seeni asaka ndax lan ndax ñiñ ko war a jox am luñ woore ne ko suñ Faliilu Mbàkke daan waxe bu weeru koor masanteru mooy jël rajo bi waxal boppam ci làmmiñu boppam ndax xam na ne moom la ñuy laaj gaa yi ginnaaw bi wax ne weeru koor wi di teru na santaaneeb sunu borom ku ko mën a boole ak liggéey bii ñuy liggéeyal sëriñ bi ba bu ñu ma jafe nekk tudd liggéey sëñ bi ku leen mën a boole na leen boole lii yàlla ko santaane ku ko munta boole na bàyyi liggéey bi te woor te ku amut lu mu woore na ñëw ma jox ko jaanam wàcc moo tax am na si ñoo xam ne amuñu koo kàddu waaye taamu woon nañ di génne asaka ci baraxlu bi di ko jox ñi ñu ko war a jox ndax ñoom ñoo am lu ñu woore ñoom itam balay wow woow fàq daanañ ca faral jàng alxuraan lépp di ko waajale koor gi daanañ ca gannaawal di tàggatu ci taxaw guddi daanañ ci tàggatu di tudd yàlla lu bare bare bare tudd yàlla goo xam ne yàllaa koy dégg doo ilxaax moo tax ñu ñu daan ko wooye shahrul qurra weeru jàngkati alquran ak weeru nafarkat yi seen diine muy weer woo xam ne lépp toll nam toll ci màggaay ak neex a jaamoo yàlla lool ndax kat bokk yi bari na lu nit di yëngutu bëgg caa am ndam dana ko waajal ab diir di def na na muy def bu demee ca fa ñuy jongantee ci di ko def ndànk ci moom kenn wala ñu doon as mbooloo su ndaw di ko defandoo ngir bëgg bu ñu demee fañ koy defee ñëpp ne fa fekk miin nañ ko mokkal nañ ko gaayee nag ci weeru badax lu wii ci lañ daan tàggatu weeru koor bi woor bëccëgam yi ak li koor ànd lépp taxaw seen kéem kàttan guddi yi doonte kenn gàllu ko ci seen loos waaye dañ koy waajale weeru màgg woowee guddee nga ci nag goo xam ne gii moom lañuy tudde guddi guddik nisfu Sha'ban mooy bu ñu yendoo bëccëgu fukk ak ñeent ba jant ba sax guddi googee jëm ci fukkeelu fukk bis ba ak wane na ca ngëneet yu bare bare yoo xam ne nettalikat yi nettali nañ ko benn bu ca ëpp sa moroom doole nga ne bii waaye am na ca boo xam ne yonent bi sallallahu daf caa wax ne guddi googu su agsee yàlla waaj na ba jekk ngir jéggal jaamam ñépp seeni bàkkaar ba mu des ku benn tomb bu mu ëmbal suñu boroom ëmbal ko keneen nekk ca ak koo xam ne da ëmbal mbokkum jullitam lu mu bëggul kenn ku ko ëmbal moo xam ak mbañal kese la bañ ko moo xam ak noonoo dox seen diggante moo xam xeebeel dox seen diggante su boobaa suñ ko tuubul yàlla day téye dem ci ñeneen ñoo xam ne ñoom am nañ jotam ndax day jàpp ne ñooñu amuñu ak jotam moom yal nañu ci yàlla musal kon boog guddi googu guddi gu mat a bàyyi xel la guddi gu mat a baal xel la ndax wenn yoon lay am ci at la kon boog la mag ma waxoon ne ku desewul ci gémmiñ gémmiñam lu dul benn bëñ kepp lu mu sàggan sàggan ci càgganteem ba bëñ ya dem mbàcc ko fa ba mu des fa benn boobee nag war na ko mën a fonk war naa mën a weex su weexut it nga xam ne yàlla ko bind noonu war nañu mën a set moo tax guddi googu su agsee yàlla waaj na ba jekk ngir jéggal jullit yépp su boobaa nag jullit dañuy nekk ñaari xaaj am na si ñoo xam ne dana leen jéggal lenn ki seeni bàkkaar lañ xam tuub ko mu jéggal leen ko yal nañu ci boole waaye dana ci jéggalit ñi nga xam ne tam day maasale lépp ñaari xaaj yooyu yépp yal nañu ci yàlla boole moo tax bis yi nga xam ne dañu koy tànn ci at diine tànn ko joxañ leen rikk waay kum agsi bu ko xamee bu mu ko raw ndax bu dee benn yoon lay ñëw ndax nisfu sax ban benn yoon la wenn yoon la doon ci at mi nisfu la ne mën naa am nisfu ramadan mën naa am nisfu shawal am nisfu dil qida am waaye nisfu shaaban moom benn yoon lay am ne yee ba amee benn yoon te yi wax ci bii waxuñ ko ca yooyu waaye ñu fàttali ne weeru koor ku wóorut ngir tàggatu ngir jaamoo ko yàlla muy ñaar yu bokkul it am na lu ko ca gàllu loo xam ne su fekkee gàllu na ko ca na ko baal xel muy ko amoon daaw borom koor ak wér ma yëgu ko woon ba barax lu teroo am nag wérëb na xam ne bor du am rakk na seet fan yanam toll mu góor góorgóorlu ba barax lu bañ koo raw ndax su ko góorgóorlu wut ba barax lu raw ko ba koor gi ñëwaat suy fay du fay yem ca kese de danañ ko teg ay daan daani àdduna mu des nag daan yoo xam ne daa dox digganteem ak doyadal suñu boroom ci gëm ni moo sañ a santaane moo santaane mu lànk kandaare yal nañu yàlla musal ci kon boog waxtu fay bor la borob koor seetlu nañ nag suñ jamono fay borob koor kenn gënu cee jàmbaare jigéen ñi te ñoom ñooñu wares na leen a joxañ bu koor gi accès léegi nag ñu toll foo xam ni fii duñ mën a woor waaye kenn du ko xam duñ lekk nit ñi di leen gis duñ naat nit ñi di leen gis kañ ngay xam ne amoon nañ ci bor léeg-léeg mu ne damay woor am xel am xel dem ci dara waaye noonu ñu suturaale seen bopp suturaale ko bëccëgu weeru koor suturaale ko ñi woor royukaay nga noonu yàlla noonu yàlla defal dëgg ak topp te xiir ñu ba ba faw ci jëfee ay santaaneem te musal ñu ba faw it ci mooy lu lu néew néew ci ay santaaneem yaxfirullahu lana wa lakum li saa'iril muslimina amin ci jamono yi nga xam ni ñëpp dañu yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom mi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital store lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek da bànneexu client yi digital store lépp lu mu la jaay dafa la koy livré ba fan ko soxla li ci gën a neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital store am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal payoor bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digital Store améliorez votre quotidien téléphone 33 823 77 87 ko doon laaj yegsi na TQG Touba Quincaillerie Générale ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egsi na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba dakaar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie Générale Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi peinture sanitaire décoration décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass wa waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matérielu quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 gratuite. Touba Quincaillerie Générale. Notre force, la qualité. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo